mooy boppu saaru suuratu muhammad sallallahu alayhi wa sallama saar wii la yàlla tuddee yonantu bi sallallahu alayhi wa saar wi makka la wàcci ñi ne madina waaye li gën a wér ci mu fassiruna yi daal dañ ne madina la wàcci ndax bi yonantu bi génnee makka di gàddaa ci yoon wi ci la saar wi wàcc te comme xas na génn na màkk rek madani madanit yu madanit yu la dañ koy askanee madina moo tax ñu ne saar wi madanitun la saar wi nag boo ko jëlee mook saar wi ñu génnee dañoo jokkaloo boo dindi woon bisimilahi rahmaani rahim gi rek mën nañoo ànd ñoom ñaar da ngay ne wenn saar la ndax yaa jeexaloo ne fa hal yuhlaku ila al qawmul fasiqun ndax yàlla du xalak kàccoor yi ñu ne ko ah kay ñan ñooy kàccoor yi nag mu ne alladina kafaru wa saddu an sabilillah moo tax boo jëloon bis basmala gi rek ñaari saar yi mën nañoo nekk benn saar bi nag booy calculer aayaat yi 38 la fanweeri aaya ak juróom-ñett sooy calculer baat yi 539 la juróomi téeméeri baat ak fanweer ak juróom-ñeent sooy calculer xuruuf yi 2349 la ñaari junne xaraf ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent saar la wu yonentu bi fonkoon daana bëri lu ko daan jullee julleeg suba julleeg suba li gënaan a bëri saar wi la daan jàng suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam di saar wu ko yàlla jagleel nag ndax fii ngay door a gisee turu yonentu bi sallallahu alayhi wa yàlla tuddee ko saar wi fii saar wi nag dana jàngale comme rek affaire yi guerre bu waxee yéeféer yi fa ñu jëm ci safara tudd jullit ñi fi ñu jëm ci aljaana def li balaaxa ulamaaw balaaxa di tuddee muqaabala su ca bàyyeekoon nag day wax ci guerre yi yéen jullit ñi fu ngeen tollu dee leen guerre feek ba yéeféer yi jébbaloo dugg ci diina ji wala ngeen yeew leen def leen ay jaam loolu dana ci wax tamit ci wàllu geer ndax mbiram madinatu munawara yonentu lem nekk màkka yépp fukki at ak ñett farataaluñ ci moom xeex ku foo aydiyakum wa aqimu salaata rek lañ leen wax bañ demee nag ba dem madinatul munawara nag ci atam ñaareel ma nag ci la guerre yi commencé nag di euh, yàlla digal ko ci moom ci usina lazina yuqaatiluuna bi annahum xulimu wa inna la ala nasrihim la qadir foofa la guerre yi door a commencé loolu lay wax si nag nii ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaakoon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira alladina gaa ya nga xam ne kafaroo dañoo weddi yàlla wa saddu ñi dëdduloo ñu dul ñoom an walis diine yàlla ji ñooñe de luñ mën a def ci lu baax tamit addalla sippi na moom yàlla axmaaluhum seen jëf yu baax ya walladina ña nga xam ne nag amanoo gëm nañ wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi ñépp dugg mu ne wa amano ñu gëm bi maa ca la nga xam ne nuzila wàcceef na ko ala muhammadin ci sayduna muhammad def na maanaam fikrul xaas baadal aam ndax wa amano wa amilu saalihat dugaloon na ñëpp mu dugalaat ne wa amano bi maa nuzila wa huwa te loolu ñu gëm muy alquran ñi wàccee ko nit alxaq mooy dëgg ju sax min rabbin gu waaye seen borom ñii melokaanoo ni de kafara jéggal na laahu yàlla sa seen ñaawteef yi wa aslaha xéwénal na moom yàlla tamit baalahum seen mbir ba dëppale leen ak lu baax rek lañ man a def daalika boo gisee nag ñële di noonu yàlla yi di xéeféeri yàlla sippi seen jëf ya ñii di soppee yàlla yi yàlla jéggal leen seen rëcc-rëcc ya bi anna lazina ci sababu naka ña nga xam ne kafaroo dañoo weddi dañoo weddi yàlla wat tabaxoo ñu topp albaatila shaytaana wa ana alladina daal ñi nga xam ne nag amanoo gëm na ñoom ittabaxoo topp nañ alxaqa alquran min rabbihim bu bàyyi ko seen borom kadalika mbir mi kan noonu la demee yadribu dana saddlaahu yàlla naas ñeel nit ñi amsaaluhum seeni mbir te mooy mbiri ñaari kuléer yi muy kuréelu xéeféer yi ak kuréelu jullit ñi seen mbir a ngoog yàlla leeral na ko kan aaya jàngoog dafa bëgg a wax képp ku gëmul yàlla nekk fii ci àdduna loo mën a def ci lu baax ci jokk bokk loo mën a def ci lu baax ci dimbali néew ju doole yi loo mën a def ci lu baax ci gas ay teen wala ay foraas wala nga tabax ay hôpitaux walla nga faj ñu feebar ñi yàlla nee na fii laa la koy fayee bu àllaaxira ma wàccoog yow ndax dafa bokk ci charte yi tax may fay jëf ak àllaaxira pas-pas bu wér te nit bu yàlla rek ta yàlla nanguwul yonantoog yonantu gi pas-pasam baaxut kon du ma ko fay dara moo tax alquran wax na ko ci beneen aaya wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuran lii nag boo déggee mu wax ko xare keloog xare badar la seen kàngaam ya ñoo tankoon ndox di ko nàndal nit ñi fukki nit ak ñaar ñoo doon nandale abi abi jëhlin ca la bokkoon lu baax loola ngi doon def nag di jox ni nga ñuy naan ñi foog ne dañ ci jëlee genn payor yàlla ne déeréet fii laa leen koy fayee ngelaw lu neex la leen di upp ak xaalis bi ma leen mayak doom ya ma leen mayak jàmm ya ma leen mayak waaye buñ ñëwee àllaaxira rek ma kitoog ñoom du leen fay dara moo tax kon ku gëmul yàlla lu mën a def ci lu baax tamit bu ko tuddee jaamu yàlla kalifa bu tedd Mawlaay Haaji Omar ma mosaane gis ku baax lool te gëmul yàlla di def lu baax ñu ne diw de ni mu baaxee mu ne bul waxati de dafa baax neel dafa laa biir nit bu xasee wedd yàlla wedd yonantu mënta baaxati neel dafa laa biir rek mu tax kon nit bu weddee yonantu bi tuddee ko ku laa biir waaye mu ne bu ko tuddee ku baax su ko defee kon euh, aaya ji tegtale na loola mu ne na ñi nga xam ne ñoom am nañ baax nañ lool di def lu baax seen pas-pas yu wér ñiy def lu baax ci farata ki naafile li yàlla wàcce yonantu bi ñu gëm ko ñoo ñe de man yàlla seen bàkkaar yañ amoon sax dama leen koy jéggal seen mbir maa leen koy yéwénalal dëppale leen lu baax rek moo leen ni ñor yàlla nag mu ne boo gisee ma def lii te mooy ma jekkal sama soppe yi jekkali sama noon yi ndax kat sama soppe yi dañoo topp alquran sama noon yi dañoo topp saytaan moo tax ma jekkali leen su ko defee ñii nga xam ne tamit ñooy samay soppe ma jekkal leen kon ku bëgg yàlla jekkal la ci àdduna ak àllaaxira toppal alquran def ndigla ya bàyyi tere ya di ko jàng loo ca man boo mokkalee baax na boo mokkalu tamit la nga ca mokkal la ko néew dee ko jàng waaye nit kuy gàddaay alquran du am leer ci dundam nit ku gàddaay alquran bu dee bu ñu ko dugalee ci bàmmeelam du am leer ab julit war na saa yu xëyee jël dara ci alquran ak lu mu tuuti tuuti def ko muy ab doos yàlla nee na sax même bu ngeen feebaree jël leen ko kon alima alima allahu am na nu mu ko wax an sayakunu minkum marda wa axaruna yadribna fil ardi yabtaxuna min fadlillah wa axaruna yuqatiluna fi sabilillah waaye loolu lépp muy ay ngant mun tërému ne faqara wa maata yasara kon loo xat-xat booy jël doos nga def ko loo feebar feebar jël ci dara ndax boo feebaree bi nañ ay ordonnance yooyu jël dii nga naan suba yi ngay naan bëccëg defal alquran muy sa ordonnance boo xam ne heure bu ne dee ko jël loolu mooy li gën alquran nag fi mu gëneen nga di ko jàng fajar fa la ëppee yool inna quran al fajri kaana mashhudan foofa la ëppee yool boo ko mënee daal bala ngaa dem ca julli ga julli suba ga rek jàngal boo ko mënut boo julli ba ñëw ubbi sa kaamil lu mu néew néew nga mos ci buy ñaari baax na buy juróom baax na buy juróom-ñaari hisib ak a baax na soo ko mënee xaaj juróom-ñaari xaaj semaine bu ne nga wàccee benn kaamil baax na alquran ku la ci mën a la man li ñu li ñu beekorloo yëpp ak li ñuy suñ jafe-jafe yëpp dara waralu ko lu wan al alquran gannaaw rek mooy suñ problème bana wax jooja mi ngi dugg ci wàllu xare ndax nag yàlla ñaari jumtukaay la teg ci loxol yonentu yàlla mu Muhammad mu cay wootee sallallahu alayhi wa sallam jumtukaay bu njëkk bi mooy alquran ñi xelu ñoo ko tax a jug jumtukaayu ñaareel bi nag mooy guerre ndax am na nit ñoo xam ne tamit loo leen waar waar wan leen yoon mënu ca dara fokk nga nga jaamaarloog ñoom moo tax kon nag ñi xelu soo leen waxee alquran ñi xelu ñëw ñi nga xam ne nag ñoom wax dëgg yàlla fokk nga geer ak ñoom ñooñu ko dañuy xelu ñëw moo tax ñaar a ko wuy si ñi xelu ñëw ak ñi xelu ñëw ñi xelu nag ci ci ci guerre lañ mën a bàyyee ko ñi xelu nag da leen di wax alquran ak njub ak baax ak yonentu bi rek ñu nangu ko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo xelu ñëw nag nga xam ne geer a koy waral la yàlla wax na guerre bi tàng rey leen leen bu baax a baax a baax a baax ndax comme comme comme comme gëmuñu yàlla ndax ñooñu dootuñ ay nit jëmmi mala rek lañ yuñ solal yuñ solal jëmmi nit waaye waaye jikko nekkatu fa guerre yi nag li muy bëri bëri tamit saanam dañ koy tooñ rek mu fayu wala ñi dal ci kawam rek mu attaqué boppam moom mu protéger boppam guerre juddoo fa waaye tug rek attaqué ay ni dal seen kaw yonentu musu koo def yëpp loolu rek mooy mooy mooy mooy guerre am yi xareem yëpp boo ko calculé juróom-ñaar fukki xare ak ñeent la lay jox moom la yonentu bi xare ci dundam juróom-ñaar fukki xare ak ñeent 74 guerre la def juróom-ñaar fukki xare ak ñeent yooyu boo ko doon calcul ñaar fukki xare ak juróom-ñaar mooy yoo xam ne moom si boppam teew na ca ñaar fukki xare ak juróom-ñaar ci la yonent bi teew soo ko ci génnee ñeent fukk ak juróom-ñaar moo cay des yooyu moom dafa yeble waaye demul moom lañ tuddee saraya saraya jamu sariyatin moom lañ mag ñi tuddee ñangal moom lañ tuddee ñàngal euh, maam xalifa def na ko ci benn téere tuddee ko euh, maanaam thaqiratul ataaya fil wufoodi wa saraya suñu waajur wu teer tedd bi Seydi Mouhamadul Amin mool na ko di ko jox boroom xam-xam yi nga xam ne mbooleem guerre yi yonantu bi demut xam ne dafa caa yeble rek waaye demut ca benn yooyu yëpp euh, mu def ko benn téere loolu sax new na tumuranke na ku ci taalif téere ba tamit nekkoon loo xam ne tabaarakallaahu dañ ko daan dégg rek waaye mënuñ koo gis mu def gëstoom ba jot ca téere ba mool ko ñu moolee ko Égypte mu tasaare ko ci adduna bi ñu di ko jëriñ boo demee ba tey saawiya Cheikh na Tijaani ba ña ngi fa teg téere ba boo demee ba Qaahira Égypte ña ko fa da nga fekk téere ba muy zaqiratul ataaya fil wufuudi wa saraaya loolu liggéeyal xam-xam ne yàlla na ko yàlla fa yiw su ko defee kon geeram yëpp loolu la yim teew ñaar fukki xare ak juróom-ñaar la maam alaaji Maalik gën koy wax wi kaa magaasihi dii am na ñu gëm ne dii la boo jëlee dii nag 29 la lay jox parce que yaa 10 beneen yaa gi 10 del 4 nga jël maanaam tamit aa aa googu jox la aa un gi jox la cinq mu jox la 29 wi kaa magaasihi yëhdi mubridan am nañu jàpp ne mu ne kabidu am na ñu jàpp ne mu ne kabidu la boo jàppee kabidu nag 26 la lay jox ndax kaaf ñaar fukk la baa ñaar la del 4 la mu jox la 26 kon dafay am werante rek ci ci ulama wu siira siira nag naka jekk werante mooy seen biir ndax ñi ne ñaar fukk ak juróom-ñaar ñi ne ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-benn demeet noonu lañ koy calculer yu bëree bëri la su ko defee nag guerre yooya ñaar fukk juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñaar fukk ak juróom-ñeent yaa xam juróom-ñeenti guerre la ci yonent bi bokki jaar yi xeex yi ci des dañ ko defal mbaar rek mu dànd nit ña di ñaan waaye boo ci wut jaasi xeex juróom-ñeenti xare rek la yonent bi génnee jaasi xeex juróom-ñeenti xare yooyu tamit kenn nit la mos a rey mooy Ubay ibnu Xalaf moom la mos a rey ca xareeb Uhud te li tax mu rey ko moo jëloon aw fasam di ko yefal ca Màkka loo koy defee mën a ci lay war pour rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga di ko waxee di ko waxee ba yonent bi dégg ko yonent bi ne kook de maa koy rey ni nga di ko waxee di ko waxee ba mu déggaat ko moom tamit bu naroon a texe it far force mu dem tur bi waaye mu ne ah man bi may wax ne maay rey yonantu mi sama bakkan dong laa ko teg waaye moom comme wax na ne moo may rey rek moo may rey li ma koy bañ bañ xam naa ne ma maa yantiqu anil hawa moo tax keroog xare Uhud ci la ko yonantu bi rey halla badata qablahu bi nukuri ala abi jahlin raisil kufri summa tura musanniyan bibnil xalaf abil maqtuli xaqan issadaf moom lay wax noonu kon su ko defee nag ñañ jàpp ca guerre ba eh, yàlla ne yonantu bi ñett laa lay bu la neexee nga jéggal leen bu la neexee nga rey leen su la neexee nga laaj leen jot ñu yëkkati seen alal joxe ko ku njote dem noonu la defeen xare badar xare badar laaj na leen alal ñi amul mu ne lañ leen jox kenn ku ne fukki xale nga jàngal leen bañ mën a bind jàngal leen ban fer ijji naka jekk lislaam diinay xam-xam la ne xéeféer yooyu lañ xam du lis du alquran waaye nañ la mën a jàngal rek ba nga mën a liir même bu dul alquran nga mën a liir arab nga mën a fer ijji xara foo mën a xàmmee ne lii la lool boo ko xasee xam xam alquran dafa lay yomb ndax ci arab lañ ko wàccee moo tax kon loolu moo doon seen njotu ba ñoom ñi jàppaale ca bàyyi tëxam ba ndeysaan yeew ko yeew ba dëgër lool ngi ñëw ci nga ko ah yonentu sa baay tëx ba yeew ba dëgër na de dañ ko bëgg a yoxamal mu ne bu ko naree yoxamal yoxamal leen ñëpp loolu mooy maandu taf terewul moog bàyyi mu bokk benn bàyyi waaye mu ne ngeen naree yoxamal yeewam bi yoxamaale leen ñëpp rek kon xare boobu lay wax ni na tàng noonu la ko yàlla bëggee moom lay wax si moo tax mu ne ida laqaytum dem daje ngeen allazina ñi nga xam ne kafaroo we dinañ yàlla fa na ngeen leen dóor darba riqaabi dóor ak jogare yi dafa xasaf fexel ja fadriboo darba riqaab xataa ida asqantumuhum ba ngeen bëril ak ray ci ñoom ña xam ne nag deexuñu fa suddoo na ngeen leen xeew al wisaaqa ca jéng ya na ngeen leen yeew yeew bu dëgër ca jéng ya ba duñ rëcci ba duñ leen mën a rey yéen tamit su ngeen leen xeewee ba pare fa imma benn man nan na ngeen leen xewe ak nju ak ak xewe te mun nuun a mu xasaf ko fa imma benn na ngeen leen xewe man nan ak xewe baxdu gannaaw ba ngeen leen xeewee bu leen neexee wa imma benn tamit na ngeen leen njotuloo fi daan ak njot xataa tadaa jëm ba sippi alxar bu xare ba aw saaraha ay diisaangeem istiaaratu tabaiya la daalika loolu boo gisee yàlla def ko saaw bu sooboon laahu yàlla lan tasara mu dimbale minhum ca yéen ba xare du am waaye def na ko nag li wa ngir na nattu baadukum lenn ci yéen bi baadin ci leen na su ko defe nag wala si na ñi nga xam ne xutiloo rayef na leen fii sabilillahi ci diine yàlla ji te moo ñañ reen xare badara falan yu di du sippi moom yàlla mukk amaalum seen jëf ya kon xare yi buñ ca bàyyeekoo mu ne bu ngeen ni guerre ak ñoom dee leen dóor ci loos yi rek waxin la sa noon booy xeex moom di ko dóor ci loos day tax nga gaaw koo gañe ndax kat doom aadama dafa bokk ci li koy gën a gaaw a rey mooy euh, yar yu ay ay ay ngànnaay wala ay yar yu dal ci doq moo tax sax bañ la rendiloo gàtt bi ñu ne rendil daggal doq gi xam nga foofa doq moom lu fa xas di bàyyeekoo dem na alquran wax na ko ci beneen aaya foofa dafa indi fexal ji fii mu xasaf fexal ji indi masdar ma fee dafa ne fadribu fawqa al a'naaqi wadribu minhum kulla banaanin fii nag mu ne rek fa darba riqaab dóor leen ca joggaraya bu baax a baax a baax a baax ba ngeen bëril ak ray ci ñoom ña deewut nag ta ngeen jàpp leen ñu nekk ay prisonnier yeew leen leen na yeew ba dëgër ndax bu ñu rëcc na yeew ba dëgër ndax xam ne tamit duñu leen mën a fekk na ngeen leen yeewee di leen ray yéen tamit su ngeen leen xasee yeew nag seeni jaam lañ su leen neexee ngeen jéggal leen ñi dem ngeen libéré leen bu leen laaj benn dërëm yonent bi def na ko xaswatu bani hawasin jéggal nañu bari def na ko tamit benn xare fale bani hawasin ca la euh, benn jigéen zeynabu moo ñëw fekk mu toog mu ne ko ah fekk moom dafa bokkoon ki ngeen jàpp jaam mu ne man de su fekkoon ne buuru Qaysar walla buuru Kisra moo ma jàpp tey sama affaire baax ñu ne ko lu tax mu ne kii jàpp ma maa moom ñoo bokkoon di nàmp sama nàmpandoor la ñi koy waxee ba yonent bi dégg ko xoola ko luy sa preuve mu jox ko preuve yu dëgër yonent bi ne dëgg la yonent bi libéré ko libéré waale mbooleem ñañ jàppoon ci xare ba Aysatu daana wax ne mosumaa gis jigéen gu xamee barke jigéen goo xam ne barkeem yaatu na ba mbokkam ya barkeewu ca bu toll ni Zeynabu mii ndax ci jéggal gi ko yonent bi jéggal ak loolu may ko moo ko mayaale ñu jéggalaale mbokkam yépp te ñooñu ay ay ay prisonniers yu bëri nañu woon jël lambaayam nga ndeysaan gim làmbaay woon lalal ko ko ne ko toog ci te pourtant tuuba gu dugg ci lislaam nga xam ne ko ndekkee ak mbokk dañ koy fonk ak mbokk dañ koy sàmm ak mbokk dañ koy xormaal donte bokku leen diine bu ko dagg boo terewul da ko war a xormaal kii tey mbokkam nàmpaaleem yonantu bi rek la bokkuñ diine sax waaye terewul jël na làmbaayam nga lalal ko ko ñu ne da koo teral a teral bañ foog ne njafeel ga mujj na soppeeku ak ak céet ngir ak ngir ak fonk sa mbokk sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tamit kon fa imaam man nan def na ko ñoo xam ne jàpp na leen jéggal leen comme mel noonu du jeex su maamatu man jëlee woon najat xeew ko ca jàkkaay yonantu ba saa yonantu ba ñëwee rek ne ko waaw noo def mu ne sant yàlla rek sooy xéwa nga xéwa ma boo ma laajee xalal ma joxe ci suba ga mu waxaat ko ko mu wax loola ba mu ñetti fan yonantu bi ne jéggal leen ko ci la borom xam-xam jëlee ne koo bokkul ak diine di ab xéeféer bu ko kuy jullit joxee ndigal mën naa dugg ci jàkka koo koy xéeféer loonu te ji kon bu waay ñëwee damay tuub dugg ci diine ji bul ne nañ ko tuubal ca biti na dugg ci biir jàkka ji yàqul ca dara jàpp naam jàppun sanguwaam sanguwut yëpp sobeem nga newul ca jëmmu ja ca jikko ja la innamal musrikuuna najasun duhul jëmmu ji jëmmu ji laab na wala xad karam naa bani aadama mais pas-pas ba la yàlla di wax ak jikko ja waaye duhul jëmmi jëmmi jëmmi doomu aadama yëpp laab na su fekkee ne nag jullit la jox ndigal nga nekk ab ku dul lu mel ni sànc jàkka te ñu ngi koy tabax te wax dëgg yàlla tabax ba nag euh, maçon bi wala entrepreneur biñ tànn duhul jullit waaye moo ko dàq jullit ñi ah su boobaa mën nañ koo jël mu tabax jàkka ji tontu dugul julli dara nekku ca boo demee tay jàkkaay yonentu yàlla Muhammad ba ne tay ña ko tabax eh, eh, di ca masjid masjidu masjidu rasul ah am na nga si dul jullit loolu daal ñenn rek lañ tere ku dul jullit moom fi ñu ko tere moom mooy mu dugg ca kaaba ga kooku moom alquran na ko wax fala yadxulu masjid al xaraami baada aamihim haada waaye fu dul masjidul xaraam ku dul jullit man na faa dugg su fekkee ne dañ ko ab liggéey buñ ko fa sant la mu war koo mën a taxawee te moo ko dàq jullit ñi dara nekku ci man na ñu julli mën nañoo tabax jàkka yi euh, dara newu ci kon kooka su maamatu tuubagut waaye terewul ña ngi ko yeew ca jàkka ja kon mu ne naqe naqare bi tàng ray leen leen ñi ngeen jàpp ba bu leen neexee jéggale bu leen neexee tamit fa imaa fi daan ngeen laaj leen njot ñi jotu dem ñu la yonentu bi laajoon xare badar ñi joxe njot mu ne def leen ko fekk ba ñu tëralee seen gànnaay istiaar tabai la saar mooy jam o wisru mooy lépp lu nit ki gàddu rek mu koy diisal moo tax yàlla sa dana ko tuddee bàkkaar kenn ku ne ci ñun sa bàkkaar yaa nga diisa nga ko yëgul rek alquran wax na ko wala taziru waasiratun wisra oxra kon wisru ci la baat bi bàyyee ko mu dem mu jël nag tuddee ko ngànnaay ndax kuy dem di gari guerre yi sa ngànnaay ngay téye moom ngay yóbbuwaale euh, far nag mu far tuddee ngànnaay baatab wisru def ko istiaaratu tabiiya yàlla ne bu ma neexoon du ngeen geer sax may xëy xëy rek notal leen xéeféer yi waaye li ko du ma man du yéen du ngeen xàmmee ñi dëggu ak ñu dëgguwul man xàmmee naa leen waaye nag li tax ma man leen a feeñal ba ngeen xàmmee leen ci guerre su guerre xawee rek jafe-jafe xam rek ci ngay xamee ku dëggu bu bu jafe amee rek ci ngay xamee maanaam am naa fiq waaye lu yomb lépp lépp am wax dëgg yàlla foofu doo xamee ku dëgguwut loolu kenn mënu ko xam ndox mu sedd maa ngi jar maa ngi ceeb baa ngi tooy fooy xamee ku dëgguwut waaye bis bu jafe-jafe amee ah boobaa ngay door a xam munaafiquna yi moo tax yàlla na def naa ko ngir nattu leen li nabluwa ba'dakum bi jullit ñi ñi dee ci xare ba dem aljana natoo xéeféer ñi dee ci xare ba dem safara waaye nag maa ngi leen di xamal ne ñañu rey ci xare ba te mooy xare Uhud dañ cee rey ñu bëri lu mat juróom-ñaar fukk rey nañ ko ndeysaanam ci ay jullit xare bu métti la ci lañ daana yonentu bi ca kàmbu ga damu sellam ba xaañ ko xare bu métti la yàlla na ña ña ca dee tamit nag aljana lañ jëm wallaay seen jëf duma ko sànq ku ca dee dem aljana da ngeen ca dee ñu bëree bëree bëri lañ moo tax mu sa yahdihim dana gindi leen moom yàlla wa yuslihu dana xéwénal baalahum seen mbir wa yudxiluhum dana tàbbal leen aljanata aljana ja jan aljana arrafaha aljana joj xamal na leen ko aljanata aljana arrafaha aljana joj yàlla teeyal na ko lahum ñaal leen su ko defee yaa ayyuha allazina gaa yi xam ne amanoo gëm nañ yàlla in tansuro bu ngeen dimbalee diine yàlla ji rek in tansuro bu ngeen dimbalee laaha diine yàlla ji yansurkum yàlla mu dimbali leen ci seeni i noon wa yusabbit mu dëgëral aqdaamakum seen ndëggu yi bu ko defee nag wa ina la wala si na ña nga xam ne nag kafaru ñoom weddi nañ fa taasan toskare lahum dal na seen kaw wa addala sippi na moom yàlla amaaluum seen jëf ya zalika boo gisee yàlla sippi seen jëf ya toroxal leen bi annahum ci naka ñoom karihoo dañoon sipp maa ansalalaa yàlla wàccee na ko fa ahbata moo tax sippi na amaaluhum seen jëf ya ñu war a dem safara su ko defee kon nag yàlla ngoog nee na ñi topp sama yoon ni maa leen ni gindi di leen teete maay defar seen mbir ba dugal leen aljana arrafahaa nag mën naa bàyyee ko ci maarifatu mën naa bàyyee ko ci arfu arfu ji firi xet moo tax ñu firi la ko ñaari ñaari ñaari façon su fekkee da ko jëlee ci baatam maarifa xadis ñëw nañu ne ku dee dib jullit war a dem aljana sa aljana ga sa logement ba da ko xam nu nu raw ni nga xamee sa kër tey kat ku wàcc ndakaaru gii foo mën a am kër ci ndakaaru nga wàcc fi ànd ak sa xel nga jël taxi mbaa sa oto yaag moom ba ca buntu kër ga boo demee tey ci réewi tubaab yi fu mel ni Amérique nga xam ne tey fu naqaree xam la réewam la moo xam ne ñëpp fa dajee soo demee tey gaa ya fa nekk yàgg fa ak ña dëkk lu kër ya niroo niroo tabaarakallaahu kenn ku ne sa la yóbbu sa buntu kër su ko defee nag ca mbedd yaag ñoom man Manhattan nag Bronx ak yooyu yëpp la muy jaxasoo jaxasoo gaa ya fa miin ñoom xam nañ ko yàlla nekkoon tamit yonent bi ne ni ngeen xamee seen kër yi fii ci àdduna nu ko raw yéen jullit ñi texe noonu ngeen xamee seen kër yi ci aljana sooy faral jël sa logement ci aljana bu la neexee boo ko defee mu bàyyi ko ci maarifa soo ko bàyyi mu ko ci arfu nag jii xet mooy aljana joo xam ne yàlla teeyal ndax nga ndax xet ak aljana doxab juróomi téeméeri at la so bu la aljana soree doxab ci juróomi téeméeri at xet gaa ngay commencé di bonni ci yow kon xam ma ne ku foofa duggee kéemaan la parfum yi sax lu parfum neex neex wallaay boo ko tuuroo yaakaar naa xet ga mënta passé 30 mètres wa waaye moom na xet goo xam ne dana sàlli lu ëpp doxab juróomi téeméeri xat googa xet moom kenn xamul xet ak lan la boo xet xamul ci aljana kon nag yàlla nee na su ngeen dimbalee su ngeen dimbalee diine yàlla ji di ko liggéeyal ci tasaare xam-xam di ko liggéeyal ci jihaat ci xare di ko liggéeyal ci dimbale néew ju doole yi kenn ku ne ak foo féetee diina ji damay waxtu su na diina ji kenn mënu koo féetee fépp kenn kon dafa am foo mën a féetee rek la ca des nag am ñu la fa ñu ko fa féetewoo waaye diina ji tool la yoo xam ne fa mu nekk fa mu fa la mu laaj yëpp kenn mënu ko dangay ngay féetewoo fii ñii féetewoo fee ngeen di bay léeg-léeg seen soox-soox ya dajee su ko defee nag yàlla nee na su ngeen dimbalee diine yàlla ji yàlla dimbale leen ci seeni noon kuy dimbale diine yàlla ji bu ragal noon yàlla dëgëral timit seen i ndëggu kenn du leen mën a daane ku ngeen songu daan ko ku leen songu daanu ku ngeen songanteeg toroxal ko su ko defee nag xéeféer yeen ñoom sippi naa seen jëf torox nañ ñoom safara lañ jëm yàlla na di wane ah ñu dogal tax ngi dem safar mu ne a ah, xanaa gisoon ñu njëkkoon a weddi yonantu ye ñoo leen xëppoon kattan te ñoom xalak naa leen moom lay wax si ne afalam yasiro ndax dañoo doxut fil ardi ci suuf ñoom xéeféeri màkka yi fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la nekk aqibatu lazina mujj gaa yi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon ñoo ñoo ñëpp damara bombardé na laahu yàlla alayhim ci ñoom walil kaafirina aji nekk la ñeel xéeféeri màkka yi amsaaluha kenn mujj gaa yooya dhalika mbir mi noonu la demee lu tax bi anna la ci sababu naka yàlla mawla lazina mooy kilifaak ña nga xam ne amanoo gëm nañ wa anal kaafira naka xéeféer yi laa mawla ndéet kilifa lahum di leen ñeexal inna laa naka yalla yi duxal dina tàbbal lazina ña nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla wa amiloo ñiy jëf saalihaati farataaki naafila yi fu mu leen di tàbbal jannaatin ay tool jannaatin ay xaljana xaljaan tajiri yooy dana daw min taxtihaa ca roon xaljana ya al anhaaru dex ya anha wala dégg xam ne kafaroo na ñoom danañu bànneexu wa na ñuy lekk kama taakulu comme naka lay lekkee al anaamu juru kër yi wan naaru safara maswan mooy nekk tàppuwaay di saxuwaay lahum ñeexal leen kon ñi nga xam ne gëm nañ yàlla mu yàlla ne xanaa ñoom waa Màkka dañoo doxut ñi ngi dox nii di tukki jëm saam di romb diyaaru samuda ya di romb diyaaru aad ya di romb diyaaru qawmi luut ya te gis na ñi weddi seen yonentoo tax ma alak leen ñi bëgg a sax ci ku continuer di la weddi fa ma jaar ak ñoom laay jaar ak yow laay jaar ak ñoom su ko defee tamit nag ñoom xamuñ kilifa te ko xamul kilifa da nga torox yéeféer yi amuñ kilifa jullit ñi nag yàllaay seen kilifa yàlla ku muy sa kilifa xam nga kilifa yàlla moomu di seen kilifa nag moo leen tàbbal aljana jël yéeféer yi amul kilifa nga xam ne daal ñoom ak mala yi ñoo kese eh, maanaam eh, wa yàkkulul kama tàkkulul an'am boo déggee mu ne kama tàkkulul an'am mooy koo xam ne daal sa bànneexu bakkan nga topp sa àdduna lépp ñaar la sa awra ak sa biir moom ngay moom ngay bànneexal rek xam nga mala yi loolu la def fu ñu toll ñu ngay sëy fu ñu toll ñu ngay lekk lekk amul amaluñ ko heure bànneexut jigéen ñi amul amaluñ ko heure fu leen neex ak ku leen neex rek nit nag bu demee ba mel noona su boobaa rek yàlla nee na mook bàyyi ma yeeyam moo tax kon aaya ji dal na ci kaw njaalokat yi ñuy njaalo di mooy ñoo mala yi ñoo xem njaalo du dara lu du ku la neex ak fu la neex rek mala yi tamit ku la neex ak la neex rek ñoo xem képp moo tax saa yoo duggee di mooy di ak jigéen goo takkut wala góor gu la takkul nga yëg nga ñàkk yëg delloo nga sa bopp ci mala ba nga delloo si bopp mala nag moo tax yàlla ne nañ la jëf-jëfi mala su fekkee amagoo jëkkër wala yow dencagoo nañ la caw téeméeri yar ndax kat mala moom bu defee lu ëpp dañuy jël yar bi rek dóor ba mu bëgg waaye nag su fekkee denc nga mbaa ñu denc la a def leen ko ñu def mala yi mooy ray rek mala kat soo demee ba neexatul la kat bëggatoo ko ci kër gi da ngay tër rek nga rendi mu jeex kon ray leen leen ray ga nag duur rendi jugal leen leen ci pax gas ko ba mu tolloog seen i wóom ngeen sànni leen i xeer ba ñu dee fa lii la alquran digle kon nit kii saa yu njaaloo mu yëg mu ñàkk a yëg rek delloo na boppam ci mala njaalookat yëpp ay mala lañ mala lañ yoo xam ne dañoo sol jëmmi nit ku leen rey rek mala nga rey su ko defee nag moo tax yonentu bi ne mooy tundi leen njaalo juróom ñett juróom benni mbugal a ca ne ñetti yëpp àdduna ñetti ya àllaaxira ñetti àdduna ya njaalookat foo ko fekk xar-xaramam day ñëkk njaalookat foo ko fekk wërsëgam day humu mënta xam dara njaalokat foo ko fekk mujjam day ñaaw njaalookat foo ko fekk safara lay dem njaalookat foo ko fekk day béel safara njaalokat foo ko fekk ba ca gën a métti yàlla da koy jéppi ku ko tudd ku tudd ku ko tudd rek yàlla ne ko bu ma ko kenn tuddati ndax am na ñoo xam ne yàlla bëggul kenn tudd leen kon nag lii yaakaar naa dara jaru ko yonentu nee na safara dana xam toll benn moment boo xam ne dafay hubale safara xasaw lool ba waa safara sax ne waaw safara tey moom xasaw na di xeet gi moom xasaw na di lu ko waral ñi xamal leen ne awraay njaalokat yi la yàlla boole di ko lakk seen awra yu góor yaak yu jigéen yi lañ boole di ko lakk moo tax kon lépp loo bànneexu ci njaaloo pareel lu gën a métti loola ci sa mu ngi la ma ngi xaar mooy yi ñi mooy yàlla yëpp gannaaw weddi yàlla gannaaw naan sàngara njaaloo ci gën a bon te nag bëri lool ci suñ jamono ji jigéen ñi amuñ kilifa li ci ëpp góor ñi jëmuñ fenn seen bakkan rek yàq avenir yi jigéen ñi nga topp koo xam ne xamul dara yàq sa avenir sa njàng ma yàqu lépp li ci ëpp nag parents yi rek ñoo ñoo koy dëgëral am bàyyi joo xam ne kurus nga ni mu guddee kaamil alquran ba ni mu rëyee nga nuyoo ko cinq mi mu ne yeggal ci biir seet sa doom yee ñeer ci saal bi mu ne bàyyil ma may leen def nga musiba léegi-léegi yaay ja xam ca lu baay ja xamut waaye dix mille yañ koy nuyoo xaale tax na muy mës-mësal la muy mës-mësal dana mos a feeñ de billahi bu éclaté mu am musiba kon jigéen ñi xam leen seen bopp ñi leen di topp tous lañ xamut kon nag xam leen seen bopp de ku ci sa bopp da ko réccu kuy njaalo dangay gàtt fan kuy njaalo doo am leeru xar-xaram kuy njaalo doo am wërsëg loo yaakaar mu tas man ngaa dem ba dee ñi lay fat waaw nag fat nag yàlla nañ ci yàlla musal kon nag aaya yooya bàyyi na ko ma ngay wax ca ma ngay wax ca ba tey ne ko dalal sa waa dëkk bi di waa Makka xalak naa ñu leen ëpp doole nit sa yi samude ñu leen ëppoon doole nit yaxaat ñaa leen xëppoon doole ndax ka a digg doomu juróom benn fukki xasabu ka ca gënoon a rëy téeméeri meetar sa gaa yi matuñ 4 mètres tañee alag naa leen sa gaa yi amuñ doole seen tabax yi garantuwut ñee seen tabax ya ca montagne yi lañ daan tabax nekk ay ponkal yoo xam ne boo ci xoloog nit mu mer montagne bi lay buddi rek sànni la ko sa gaa yi nag ay ay ay ay ay kii lañ ñoo kenn xamul ay xusma ñàpp lañ ku ci mer xeer rek nga mën a yëkkati dammiti mool te ñooñu xalak naa leen kon nag sa gaa yi ñu bëggee sax ci di la weddi dama leen xalak ndax alak naa ñu leen ëpp doole mu tudd dëkk ba nag namu ci ñooñ dëkk ba majaa sama àqali la moo tax mu ne wakam min xaritin bari na dëkk waaye ñooñ dëkk la ca nam wakam min bari na dëkk hiya moom dëkk ba ashadu moo gën a tat min quwatika ci sa dëkk bi allati dëkk ba nga xam ne axrajat ka génne nañ la muy màkka sa gaay ëllëg naa ko te terewul xalak nañ ñooña ëllëg naa ñu ma leen xam ne ñoom dëkk ba la ca namm fala naasira te déet aji aji dimbale lahum di leen ñaal ba ma leen xalak kenn ku leen mën a dimbale a afa man kaana ndax koo xamee dafa nekk ala bayinatin ci lay min rabbihi gu bàyyee koo ci boromam ka man suyu na ndax mën naa xema koo xamee leef na ko taaraleef na lahoo ñeel ko suwa amalihi bon ak jëfam ja wa tabaxu ñu topp ahwaahum seen bànneex mënuñoo xem yàlla aaya ji dafa wàcc ci yontu ba mu nekk ci xuntu ma ndeysaan ñu génnee ko dëkk bi mu wan dëkk ba gannaaw rek dugg ca xuntuma aboubacar fekk ko fa ñoom ñaar ca biir xuntuma ndey saanam aboubacar ak bëgg yonantu bi mu xool xuntuma bari ay pax lool pax mum gis rek mu dagg ci yéreem fattee ko pax ma pax mum gis rek dagg ci yéreem fattee ko pax ma ba daanaka li des ci wóomam ak i jumba xam la dese ndeysaanam nag mu des benn pax moo xam ne bu ko fattee yéreem yi rek moom tamit tabaarakallaahu dootul dese dara mu far jël pax mooma nag wéer ca gannaawam nga ndeke jaana ca nekk jaan ja màtt ko te yonent bi nda sallallahu alayhi wa sallama fekk na ba mu koy màtt aboubacar mi ngi tàllal ténkam bu tedd ba yonent bi jël xar-xaramam bu tedd ba lexem ya wéer ko ci li ko jaan ji matt yaram wi tàng jër aboubacar respecté yonent taxul mu ñeme koo wax woogu ko dara yonent bee sentir ne ko waaw sa yaram wi tàng na di mbaa jàmm la mu ne maa foo dafa am lu ma laal de ñu gestu nii rek seen jaan jaan ja nag moo ko matt foofa la yonent bi ñaanee la muy ñaan taf li ko ko jaan ja wàcc ca saasa léeg-léeg nga dégg xisakat yi wax na jaan ja xam na fa téeméeri junne xat dafa ne fa bëggoon riisu yonent bi neexal tànt rek la léeg-léeg nga wax loo xam ne da ngay tànt bi gaa yi joxe rek waaye jaana ko matt rek waaw ndax léeg-léeg moom gaa lu ñu a indi xisa yoo xam ne ni dañu lay joxe xaalis rek léeg-léeg léeg-léeg dégg waaye yëkkati leen seen loxo yi ku sopp yëkkati sa loxo dañoo bëgg loxo yi jege poos rek kese yëkkati leen seen loxo yi bëgg mu jege poos ba rek ndax ñi mën a joxe façon yalwaan mu ne da nga ko gis su ko defee nag mu toog ca xuntu ma ndey saanam xool dëkk ba ronkañ ya dal ci dënn ba muy jooy ne yow yàlla génne nañ ma dëkk bi ma gën a bëgg maa ngi ñaan yàlla nga ma yóbbu ci dëkk bi nga gën a bëgg moo tax Maalik ak Saafi yu werante ci Maalik ne Madina too gën saafi yu ne màkkaa gën saafi yu ne màkkaa gën ñu ne ko lu tax mu ne fala kaaba ga ne fala xajrul aswad ne fala samsam ne fala maanaam safaak marwa gi ñu daw fala ne fala yonentu ba juddoo fala maamam yëpp juddoo fala ibrahima ñaanoon ñaanam yu siiwee di juróom ñaari ñaan te loolu lépp amul madina ah, ah, loolu la wax eh, su ko defee nag eh, Malik ne ko madinatu munawara moo gën ndax kat dafa ne ñaara tax bu njëkk bi mooy yonentu dafa ñaan ne génnee nga ma dëkk bi ma gën a bëgg yow yàlla yàlla nga ma dugal ci dëkk bi nga gën a bëgg kon Madina la yonent la yàlla gën a bëgg li yàlla gën a bëgg moo gën a moo gën a foor li yonentu gën a bëgg ñaareel bi tamit yonentu bi nit la koo xam ne dundam amul perte toujours tayam dafay gàccaal démbam démbam di gàccaal bërki démbam moo tax alquran ne ko walal axiratu xayrun laka mi al ula kon li ma wax yëpp ula la muy màkk njëlbeenu yonentu bi aaxirut nag di mu ak yonantu bi bañ denc ko fi mooy maanaam madinatu munawara te yonantu lu mujj ci moom rek moo gën loolu ma Maalik wax maanaam Shaafi'i su ko defee kon nag mu jooy waaye gis nga ko yàlla lam doon lam doon jooy xol ba sedd na dem na mun a def fa juróom-ñetti at jëm juróom-ñeent yàlla jox ko armée boo xam ne tabaarakallaahu waa Makka mënuñ koo dékku mu ñëw dugg ñoom. ñëw nag fukki junne la woon ba muy dëpp la nekk fukki junne ak ñaar waaye fukki junne ñu la ànd ak ñoom dugg ci màkka mu nekk ay ay drapeau ñu dugg ca dëkk ba mu ñëw nag war a wër si kaaba gi yonent yonentu mas ta dugg màkka lu dul dafa xarmal keroog boobu rek muy fatxu màkka la dugg màkka te xarmalut su ko defee ñëw wër kaaba geeg la ca aju gaa yëpp daw nag noon ya daw nañ dugg ci seen néeg yi ñi dugg ca roon lal ya fu waaye mën a nëbbatu dem nga nëbbatu ndax am na leen armée boo xam ne mënuñ koo dékku euh, ci la mujj nag Abu Sufyaan nag Baxlaam ba xisa bu gudd la jaar foofa ñi rëcc rëcc jaar ànd ak Abbas mu indi ko ba ci yonantu bi mu tuub yonantu bi ne ko nag cëral ko dara ko bëgg daraja la ndax am na ni ñoo xam ne boo leen jiitee boo leen darajaalul rek musiba am fexeel ne ko darajaaleel ko rek ne ku duggu këram rek nga sagalee ko ko ne kooku rëcc na yonantu bi ne ko dugg kër Abi Sufyaan nga yonantu ko ko sagalee ku dugg ca Kaaba ga rëcc nga su ko defee nag yonantu bi seette woon na fukk ak ñaar ñoo xam ne dafa ne même bu ngeen leen fekkee ci rideau yi Kaaba ga sax ñi langaamu ca na leen rey ñoom tamit ca kaa ñam ko waxee woon ca li kaaba ga lañ leen fekk ñu langaamu ñu rey leen ñoom tamit su ko defee nag xare bu gudd a gudd la yonentu bi nag gaa yi taxaw mbokkam yi ay xéeféer yi ñëpp sukk ci kanamam euh, jekku na leen mu ne leen lu ngeen yaakaar ne moom la leen di def ñu ne ko ah yow di mbokk mu baax nga di doomi mbokku mu baax mu ne tey ma wax leen la yusufa waxoon doomi baayam ya aqulu maa qaala axi yusuf laa tasriba alaykum al yawma yaxfiru laahu lakum jéggal naa leen moo tax màkk ñu leen tuddee ahlu tulaqa ndax ñoom ñëpp nekkoon nañ di jaami yonantu bi sallallahu alayhi wa ci benn bëccëg yonantu bi xëy libéré leen benn bis kon loola mooy mbaax ku jekku sa noon da nga koy jéggal waaye doo ko jekku jekkali ko jekku jekkali du ngóora waaye jekku jéggal mooy ngóora moom la moom la yonantu bi def ak noonam yi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yàlla ne waaw yow mi nekk ci xujjatu bu leer nañ ñi ndax man ngaa xem ak koo xam ne ñaaw ak jëfam rek la muy abu jëli nag abi lahab ak yu mel noona déedéet mënuñoo xem moo tax af man kaana ala baynati mi rabbihi kaman zuyna lahu suu amali mënuñoo xem aljaana jañ jañu yàlla dëhal nag yàlla nañ ca duggul la ca nekk ci ay tiraanga lay wax yàlla ne aljaana dafa am ay dex am na dex yoo xam ne ndox rekk la ndaw ndox mu neex ndox ma dee moo gën a neex ndox mu neex duma ko misaal ndox mi kese ki ma ko mu ne tamit am na soow njar soow moo xam ne nag moo gën a neex bokkut ak soow mi ndax soow mi boo ko fi wayalee bu yàggee dafay forox soow ma laqira amul forox te laa laaju suukar ndax sa soow mi li nga ne suukaral nga mos ba xam ëpp na wala manqué na ngay nekk dinaan ëpp naag dafa manqué ba mu far ëpp mbaamu manqué soow ma laqira amul loolu te du forox ku yàkkamti sàngara di ko naan ngaa yàkkamti xaaral fële ba yàgg ba dugg aljana da nga doyal ci sàngara sàngara si ak loola du benn sàngara sii da yàq xel yàq sa wér-gi-yaram waaw xel ni mu seeree lu ko lu la koy yàqal wax dëgg yàlla nga war koo ba Omar ibn taat daana wax ne sàngara de moom bu toon sax man ma ba ko ndax man ka damaa bëgg lu yokk sama xel mi luy wàññi sama xel mi du ma ko jëfandikoo kon loola ku naan sàngara sa xel mi yokk sa xel mi wàññeeku boo naanee da nga kayang kayangi saaga sa yaay xel fa neexatul saaga sa baay door ku la hëpp doole te yaa ngi nii di kayang ku la ba ma sax nga daanu ngay tooñ ñoo xam ne ñoo la man loola lépp xam nga ak dofe nu koo passé Ah, moo tax lislaam dafa ñëw ngir sàmmal ñu juróom dafa ñëw ngir sàmm sa xel moo tax mu xaraamal naan sàngara dafa ñëw ngir sàmm xalal moo tax mu xaraamal sàcc dafa ñëw ngir sàmm sa der moo tax mu xaraamal xaste dafa ñëw ngir sàmm sa askan moo tax mu xaraamal njaalo eh, dafa ñëw tamit moom ci boppam ñu war koo sàmm moo tax mu yoonal jihaat lislaam juróom yii sàmm moo ko tax a jug boo demee ci usul mooy jàngale loola ne lislaam dafa ñëw ngir protéger juróom yi nga xam ne suñu sàmmoo lépp baax bu ñu yàqoo tamit lépp yàqoo te lépp tamit intérêt doomu aadama la sa xel mi sàmm du sa intérêt sa der bi sàmm du sa intérêt sa alal ji sàmm sa askan wi sàmm ndax boo fi nekkee euh, ko jigéen gu la neex nga am ak moom rapport sa doom yi duñu am kuñ leen askane nga dem ba dee bàyyi fi gàcce ñu ne ah ana miraaskat bi moom kat am na ñaari doom yu judduwut ci yoon de mu ne a ah, man du ko miraas nga dem ba dee yaa ngi sa biir bàmmeel bàyyil sa mbokk yi gàcce boo ci nekkee ndaw doo ko xam waaye boo demee ba loola passé nga nekk ci màgget ngay door a xam li nga def yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel su ko defee kon nag yooyu ngoog aljaana ja xéewale fa ñale moom la ñuy wax nii yàlla bu mu ñu humpu moo tax mu ne masalul janati mela wax aljaana allati ja xam ne waxida dëxaleef na ko almuttaquuna way ragal yàlla ña fiiha aji nekk la ca aljaana ya anhaarun ay dex min maayin ju tukkee koo ci ndox ndox moo xam ne xayri asinin duhut mu xënji wexut xat wa anhaarun am na ay dex yoo xam ne min labanin ci soow la bàyyee ko soow moo xam ne lam yataxayar soppeeku taxmahu caf ngaam ga wa anhaarun am na ay dex yoo xam ne min xamrin ci sàngara la bàyyee ko lazatin aji neex la li shaaribiina ñeel ña koy naan lazatin bi maanaam laziza aji neex la li bi na ñeel ña koy naan wa anhaarun am na ay dex min asalin yu bàyyeekoo ci lem lem goo xam ne musafan guñ segg la amul maanaam kabine yembu amul maanaam yu mel noona sal sal saltaya nekkut ca wala hum aji nekk la ñeex leen fiyaa ci aljana min kulli samaraat ci mboolem xeeti meññante yi furi yoo bëgg ma nga fa wa maxfiratun ak njëggal min rabbihim gu bàyyee koo seen borom waaw ku nekk ci xéewal yi yàlla xéewal ko ndax mën naa xem te man ni ki koo xam ne huwa moom xaalidun dafay béel fi naari ca safara wa suuqoo nandaleef ko nandaleef leen maa an ndox xamee man mu tàng jër bañ bañ ko naane rek fa xataa mu dog am aawum seen butit ya am seen ñëg ya mën nañoo xem koo xam ne bu duggee aljaana ñeenti sew sewnde yi la ko yàllay terale waaye waaye dex goo xam ne tabaarakallaahu dex ga dexu ndox mu neex la ndax ndox dara mënu koo remplacer moo tax moom la njëkk a tudd ndox dara mënu koo remplacer ci dundu doomu aadama man ngaa ñàkk sàngara dund man ngaa ñàkk eh, boisson dund man ngaa ñàkk yeneen nga ci aju fur wi dund waaye nag ndox moom dara mënu koo ñàkk dégg nga yàlla nee na lu ma bind luy dund lu nekk ci ndox laa ko bind minal maa yi wa xalaq naa minal maa yi kulli sin xayin luy dund lu nekk ci ndox la doon kon ndox dara mënu koo ñàkk moo tax ndox yàlla ku baax ku bari yërmande leen nit ñi soxla woo ndox ñëpp daw jum si te kenn mënu koo ñàkk bu ko yàlla seeralee woon ni mu seeralee boisson bi nit ñi am problème moo tax lu yomb lu war a jëriñ doomu aadama rek xam ne mënu koo ñàkk rek yàlla da koy yombal ñëpp a ciy xem loo néew néew doole mën koo jariñoo loo mën a new néew doole mën a jënd mbuus ak juróomi dërëm mbaa mbuus ak fukki dërëm jariñoo ko waaye bu doon boisson bi lii yi di yar 1000 francs yi di jël 500 yi nangam wax dëgg yàlla da nga am problème waaye lépp luy beewloo doomu adama di ko yokk ak bew rek yàlla da koy seeral ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk fu ñu bàyyi ko fi sàngara si bàyyi ko fa la ndox mi bàyyi ko ñoom ñëpp ci yàlla lañ bàyyi ko waaw lan mooy sekkareem nag ndox ñëw yomb sàngara ñëw seer nga mbir la de kon lépp loo xam ne dangay ngay koy euh, jël muy yokk sa bew rek yàlla foo koy seeral lépp loo xam ne mënoo koo ñàkk muy jariñ ci sa santé rek yàlla dafa koy yombal moo tax kon ndox la njëkk a tudd ndox moom mënuñ koo ñàkk alquran wax na ko wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum ma an ghadaqan bi aaya ja wàccee ci la Omar ibnu Xataab ne wa haythu yujadul maa'u yujadul maalu wa haythu yujadul maalu tuujadul fitnatu Omar nee na fu ndox am alal am fa moo tax ku bëgg a développer am réew yomb na fexeel ba ndox mi saawaan baawaan ci dëkk yépp rek saawaan baawaan ci àll bi yépp ñuy bay noor ak nawet waaye su fekkee dañuy bëgg a dépendre ci ndoxam taw bi rek bu tawee ñi ba ñi bay bu taw bi jeexee ñi jëlaat den den dencaat bagage yi di xaaraat mu tawaat é mënuñoo ñàkk jëggaani lu tax su fekkoo ne yow comme da ngay bay noor ba da ngay bay ko nawet rek waaye kon da waroon du dund nawet rek waaye bul dund noor waaye comme da ngay dund noor di dund newet kon faw nga bàyyi noor bay nawet bu loolu xamul du sotti loolu xamul rek du sotti Omar ne kon fu ndox am naataange am fa fu naataange am nag fitna dootul fa jógee kooti alal fu mu xam maanaam euh, natt dootul fa bàyyee kooti fu alal am noonoo xam fa fu fu fu alal am soxorante liggéeyante wax yu boon am fa kenn mënu ki dara moo tax mu ne waxaytu yujadul maa u yujadul maalu wa haythu yujadul maalu tujadul fitnatu loolu na Omar radiyallahu anhu wax yal na yàlla yokk leeram kon eh, dex ak sàngara yo dexi sàngara la wax da koo jamoo jamoo takk siir anhaar jamoo nëhërin naka noonu dex yoo xam ne tamit eh, lem la gis nga ko tamit lem goo xam ne dañ koo segg bokkut ak lem yi ñu naan xëbi lem yaa ngi ca kabine lem yaa ngi ca tànki tànki yambu yaa ngi ca loola xamu ca lem gu set wecc mu safan la xeeti ti wi yoo bëgg tamit tabaarakallaahu ma nga ca aljana ndax araab yi dañoo bëgg fur wi moo tax fu alquran tuddee xéewale aljana rek ñaax leen ci wàllu fur wi te fur wi tamit dafa baax ci dundu doomu aadama bokk na ci li nga xam ne dana la yokk sante bu baax a baax a baax a baax boo demee ci médecin yi dañ lay të dañ lay digal nga di ko jëfandikoo feebar yu bëree bëri ñàkk lekk fur wi dana koy indi ndax su boobaa jàngoro yu ndaw yu nekk la bu la songee rek daan la waaye loolu boo koy jëfandikoo te wàññi di wàññi ceeb bi yokkee ko fur wi dana la dimbale ci bu baax waaye ñun ba dañoo foone lekk nañ rek dóor ci ceeb bi ba mënatoo taxawati loolu tamit tabaarakallaa mu ànd ak dawlin gi yëpp taa ci sa biir bi loola baaxut yonent bi daana wax ne ndab yi doom aadama am di ko feesal benn ndab rek mooy boo xam ne bu feesee di musiba ñu ne ko ban mu ne mooy ndabal biir sa paan bi bu feesee yiw la sa ndaal yi bu feesee yiw la sa boole yi sa booli yi bu feesee yiw la waaye biir bu feesee rek di musiba te ñun nag bala ñoo gën a kontaan suñ sa biir bi fees moo tax mu ne xaajal sa biir bi ñetti xaaj bii nga def ko ñam bii nga def ko ndox bii nga noyyi ko lii ko koy def yàlla mën na laa dimbale da nga yàgg da nga gudd fan danga wér lu bare bëri bëri waaye foo toll regg ba mënoo noyyi billaay mënoo gudd fan te doo wér foo foo toll tànk ya te tànk yay métti ndigg la di ruux lekk ga di gaaw a yéex a rees nga seere coono bu ne mënoo caa jóge ko moo tax yonent bi buur bële nekkoon Égypte mu xaw xiis ba ko yonent bi ndee leetar gëmul sax yàlla waaye da ko may may ko may na ko ñaari soxna kenn ka mu def ko taara di maariyatu xibti kenn ka mu may ko muy sirin mu may ko euh, xasan ibnu saabit moo ko doon wayal may ko ay baxla may ko bergenn may ko xayma ba mayaale ko médecin bu koy faj yonent bi jël may yëpp ne na médecin bi ñibbi ñu ne ko lu tax mu ne ko ñun duñ feebar médecin ku feebar ko soxla ñu ne ko lu tax du ngeen feebar mu ne ko nit lañ ñoo xam ne bala ñoo lekk fekk xiif nañ lool bala ñoo regg fekk jug nañ lii ko ko taxoo doo feebar moo tax kon ci la fuqaaw yi jëlee ne koo bokkul ak diine bu la mayeelu sa diine nangu jëlal kee xéeféer la bokk la yonent bi diine waaye lam ko may yëpp diineem nangu ko te mu soxla ko jël na ko waaye koo bokkul ak diine bu la mayeelu sa diine nanguwut delloo ko ko may na la sàngara may la mbaam xuux may la yeneen yeneen delloo ko ko waaye bu la mayee ay yére may la portable may la xaalis jëlal donte bokku leen diine dara nekku ca comme sa diine nangu na lam la may rek man nga koo jëriñoo kon bàyyi na mbiri xéeféer yaag yooya na ñoom buñ duggee seen boisson ba mooy Euh, tabaarakallaahu ndox mu tàng jir xamiim nga xam ne buñ ko jubalee seen xarxaram ya seen deru xarxaram ba ñoree ko ñun naan ko butit ya daggate ci biir te tereewu suma laa yemutu fiha wala yaxya aaya ji tegu ci dafay wax munaafiquuna yi bu yonent bi taxawaan di xutba duñ ko sax nangoo déglu daanaka su demee ba xutba ga jeex ñu dem ca borom xam-xam ya fekkeewul xutba ga ne waaw suñu ñu ji moom lu mu doon wax tey discours bi moom ci lu mu ko wax nga toog waa ji wax li muy wax dara intérêt intéressé wul la ci nga bàyyi bàyyi ba mu jàll ngay door di laaj laaj goo xam ne sax da nga caa jublu laaju laaju yëjji loolu du jeex bëri na koo xam ne tey tàggu na la dem ci conférence mbaa mu dem ci gàmm mbaa ci dem xew war a dem wallahi bu ñib si woon nga laaj ko waaw conférencier ba lu mu doon waxtaan mënu ci nettali dara dara mënu ko caa wax mënu caa jëlee masala mu mën a wax ne lii tey moom laa jëloon tey sa dem sa dem gi perte na looy dem dafa war a am tax a jug waaye dem rek yokk mbooloo ma dem rek seetaan yi seetaan yi ak dem di jëriñu nekkuñ benn loolu baaxut moom lay wax si nii nag mu ne wa minhum am na ca munaafiquuna ya man ñoo xam ne yastamiu danañu déglu ak xutba ilayka jëm ci yow suñ dégloo nag xatta ida xarajoo bu ñu génnee min xindika bàyyi ko fa yow xaaloo wax latina xaaloo ñuy wax latina ñel ñi nga xam ne uutoo joxe ay alma xam-xam ñi xam xam-xam ñi leen di laaj ñu leen maasa xaala am lan la doon wax moom yonent bi aani fan sànq lu mu doon wax léegi yàlla ne ulaayka yooye gaa yi la si ne mooy ña nga xam ne tabaxal lënkaañ na laahu yàlla ala qulubim seen xol yi wa tabaxoo topp nañ ahwaawum seen bànneex yi wala si na ñi nga xam ne nag ñoom ihtadaw gindeeku nañ zaadahum dool na leen laahu yàlla huddan njub zaadahum dool na leen moom yàlla huddan njub wa aataahum yenkiwal na leen taqwaahum seen ragal yàlla ga wa aataahum jox na leen taqwaahum payoor ak seen ragal yàlla ga fahal yunsaruuna ndax def na muñal leen ila saata lu dul dikk ak antaati yow mu dikkal leen baxtatan ci mbetteel faqad jaa dikk na asraatuha mandargaay bis penci bu dikkee nag fa annee lahum naka naka lay nekkee di leen ñeexal zikraahum seen ak waaru ida jaadhum ndem dikkal na leen ixtiraat la fa faalam xamal ne annahoo naka lay mbir tey mbir laa ilaha mut benn buur ilaahu wa ndere yàlla wastaxfir na nga jéggalu li zan bi ka ñeel sa bàkkaaru xeet bi yow xamoo bàkkaar walil muumin na nga jéggalul way gëm ñu góor ñi wal muuminat ay way gëm ñu jigéen ñi wallaahu yàlla ya'lamu xam na mutaqallabakum seen wëlbatiku waay ci bëccëg gi di sàkku gi dund wa waakum ak seen tàppuwaay ci guddi di noppalu loolu lépp yàlla xam na ko wa yaqul dana wax la na ñi nga xam ne amanoo gëm nañ ñu ne law laa nusila lu taa wàccee sooratun saar wu ñuy digal ñu dem xare ji dañoo bëgg a xeexi yàlla ne fa ida unsila ne wàcceef na sooratun saar muhkamatun wadee wuñ xereñe mooy bu leeral naññi jamtalahut waaye dafay wax ci xeex moo tax mu ne wa zukkira tuddee fiihaa ca saar wa xeex raayta da nga gis la na ñi nga xam ne fii quluubihim ak yi nekk la seen xol ya maradun feebar ak nifaaq yanzuru na ña ngay ropp ilayka jëm ci yow nasaral maxshi alayhi comme ropp ak koo xam ne dañ koo dañ koo muur minal mawti ci dee kuñ nërmal ci dee fa aw awlaa toskare lahum ñaal na leen wax ja jeex taaxatun ak topp nag wa qawlun ak wax maarufun ba de buñ xam jëmee ko ci yonantu bi moo gën lu dul loola fa ida asama su fekkee dafa dogu al amru mbir mi mbir du dogu waaye dañuy dogu ci mbir mooy bu ñu demee ba nga xam ne xare bi taxaw na mënta ñàkkati boobaa nag ñi nga xam ne ay naafeq lañ ñu ngi commencé di wut lay di indi ay wax yuy féewale waaye yàlla ne falaw sadaqoo buñ dëggaloon laaha yàlla ci topp yonantu bi li konoon dëggal ga la kaan day nekk xayran dihiw lahum ñaal leen kon ku gëmul yàlla saa yu caaxaan fàccee dëgg taxaw rek nga xàmmee ñu dëgg wut ñi waaye bu caaxaan taxawee jayante am seddalee xaalis am lépp neex doo xàmmee ku doo xàmmee ku dëgg ku dëgg waaye nag ñoo daan taxaw ne ñun dañ ñoo toon euh, waa ñu ne dañoo bëggoon wax dëgg yàlla ñu farataal ci ñun xeex ndax buñ xeexee ñi dem mën a xeexi yàlla ne ba mu farataalee ci ñoom xeex rek ñu wane gannaaw euh, kon na munaafiq noonu la mel euh, yàlla na ni yàlla musal ki seen pas-pas yu bon yooya su ko defee kon nag li des ci saar wi mi ngi mel ni bëriwut ñi ñu dawal ko rek mu jeex yàlla ne fa hal amaat na yéen in tawalaytum dem dëddu ngeen an tufsidoo ngeen di yàq fil ardi ci suuf wa tuqatti'oo ngeen di dagg arhamakum seen bokk yi ulaayka yooye gaa yi la si ne mooy ñi nga xam ne laanahum sori na leen rëbb yërmandeem laahu yàlla fa assamahum tëxal na leen wa ama gumbaal na absaarahum seen gis-gis ya afalaa yatadabbaruta ñi settantal alquran alquran am ala qulubim ndax dafa nekk seen xol ya aqfaaluha ay xombeem mooy lañ koo tëj ina la si daal ñi nga xam ne irtadaw dañoo dumóoyu ala adbaarim seen gannaaw ya min ba'di maa tabayyana gannaaw bi nga xam ne biir na lahum ñeexal leen alhudaa njub ñii de as saytaanu saytaane sa wala moo rafetal lahum ñeexal leen wa am laa moo guddal mbébét lahum ñeexal leen ñi foon duñ dee daalika loolu boo gisee mu am ci ñoom bi annahum ci sababu naka ñoom xaaloo wax nañ la fi ñal ñi nga xam ne këriyoo dañoo sib maana sallallahu yàlla wàccee ñuy wax ne sanu téexukum danañu topp leen fii baadil amri ci lenn ci mbir yi danañ leen topp ci noonoo yonantu bi danañ leen topp ci séddoo xaalis waaye bu geer amee ñun duñ dem yàlla ne wallaahu yàlla yaxlamu xam na israaruhum seen yeelu ga fa kay fa kaawteef ida tawafathum dem faat na leen almalaykatu malayka yi yadriboona yi danañu dóor wujuuhum seen cëlmaay ya wa adbaaruhum ak seen gannaaw ya dalika dóor ak malayka yo di leen buggal nag bi andoom ci sababu naka ñoom ittabao dañoo topp maa asxatalaaw li yàlla sànji wa karihoo ñi sib ridwaanahoo ngërmande yàlla looloo waral fa ahbata sippi na moom yàlla amaalum seen jëf ya ñi mujj torox kon loolu leer na yàlla nee na am na ñoo xam ne dañoo njortu su ma leen dimbalee rek ñuy waaxu ci suuf di fi def ak mooy yàlla jël doole ji yàlla jox di ko moyee jël ndomba tànk gi yàlla jox di ko moyee jël wér gi yàlla jox di ko moyee jël xalal ji yàlla jox di ko moyee jublu ke di dagg ak bokk yàlla nee na ñooña soril naa leen sama yër ma ne tëxal naa leen ba ñoo dégg dëgg dégg ak nangu waaye gumbal naa leen tamit ba ñoo taataan dëgg maanaam taataan goo xam dañ ko jaan jëree ak nangu su ko defee nag dafa mel ni seen xol ya dañ koo xombe ba mënuñoo settantal alquran ñooñu nag seytaane moo leen rafetal seen yoon yooya su ko defee guddal leen ndébét ne du ngeen dee wala bu ngeen deexee dekki amut ñoom tamit ñi ànd ak munaafiquuna yi di wax ne danañ leen topp ànd ak yéen ci noonoo yonantu bi waaye nag lépp luy séddoo xaalis d'accord nañ waaye lu war a yóbbu suñ bakkan yi di fi bàyyi suñ soxna yi suñ doom yi dem di deeyi xelaatuñ ko kon loolu mooy jikkooy munaafiq bu neexee rek mu ànd ak yow bu naqaree rek mu wane gannaaw yàlla ne am xasiba ndax dafa njortu la fi na ñi nga xam ne fii qulubim ak nekk la seen xol yi maradun feebaru nifaaq an lan yuxrija ndax du génnee laahu yàlla adgaanahum seen mbañal ga dana ko feeñal de walaw nasaaw bu ñu sooboon la araynaakahum ñu wan la leen fala araftahum li konoon nga xam leen wala fala araftahum da nga xam leen sax bi siimihum ci seen mandarga wala taarif wala taarifannahum wallaahi da nga xam leen fii laanil qawli ci wax ju bon wallaahu yàlla yaxlamu xam na amaalukum seen jëf ya wala nablu wannakum ñu feeñal leen danañu nattu leen na naalama ba ñu feeñal ak xam ñun xam nañ waaye dañuy feeñal xam almujaahidina ñooy jihaad minkum ci yéen wa saabirina ñooy muñ wa nablu wa danañu feeñal axbaarukum seen solo yi ina lisina ñi nga xam ne kafaroo wér dinañ wa saddoo ñuy dëddu xan sabillaahi bàyyi diine yàlla ji wa saaqoo ñiy wuteeg rasula yonantu bi min baadi maa tabayyana gannaaw ba biree lahum ñe alhudaa njub ñoo nga ne lañ yadroo mënu ñoo lor laax an dara wa sa yuxbitu xal si naa sippi moom yàlla amaaluhum seen jëf ya kon nag yaa ayyuhaa allaziina ngeen xam ne aamanoo gëm nañ alquran ateexu na ngeen topp laaha yàlla wa ateexoo ngeen topp rasula yonantu bi wala tubtiloo bu leen yàq amaalakum seen jëf yu baax yi inna allaziina nga xam ne kafaroo weddi nañ wa saddoo ñi dëdduloo ñeneen xan sabillaahi walis diina yàlla ji su ma maatoo topp ñu dee fekk wahum ñoom ku faarun ay xéeféer lañ ñoo ngi defa lan yax fada du jéggal mukk laahu yàlla lahum ñeexal leen falaa tahinoo bu leen doxadi yéen jullit ñi wa taddoxoo na ngeen xoote yéen ñëpp ila salmi jëmee ci xéwénoo wa antum yéen axlaw na yéen ay wallaahu yàlla maakum an naag yéen walan yettirukum du wàññil leen yéen yàlla du leen wàññil mukk ahmaalukum seen jëf yu baax yi innamal xayaat naal naka dund bi duniyaa bu jege bii laxabun maan laxibun fola moo xam ne organisé wuñ ko wala woon ak foog muñ organisé wa in tuuminu su ngeen gëmee wa tattaqoo ngeen ragal yutiikum dana jox leen moom yàlla ujoorukum seen payoor yi wala yasalukum du leen laaj moom yonantu bi amwaalukum seen xalal yi ndax xam na ni ngeen xiiree ci alal in yasalkumuhaa su fekkoon laaj nañ leen seen xalal yi fa yuxfikum dana mu tanjamal leen te su boobaa su boobaa rek maanaam yéen tabxaloo da ngeen di nay wa yuxrij ngeen génn dana génne antum haa yëgal ne antum yéen haa wulaay yéen ñi nekk fi tey tudduxaw na def na xoo leen li tunfiqoo ngir ngeen dundale fii sabilillahi ci diine yàlla ji waaye fa minkum am na ci yéen man yabxalu ku nay ba man ta joxe ci yàlla waaye wa man yabxal képp ku nay fa innama yabxalu daal ndayam nga da nga koy taawil masdar an nafsi dal na ci bakkanam ba xan nii mooy aji xoomal wa antum yéen ñëpp fu da dangeen nekk ñu ñàkk xaajowoo jëm ci yàlla wa in tatawala su fekkee da ngeen a dëddu ba nga topp yàlla yastabdil dana wattee qawman aw nit gayrukum ñu du di yéen su ma laa yekkoonu topp ñooñu du nekk tamit am saalukum ba mel ni yéen foofu la saar wi jeexee tombeeg waxtu wi jeex liñ ba bëstal lu bari jaaroon nañ ci yàlla ñuy ñaax rek ne dafa bëgg a feeñal ñu dëgguñu ak ñu dëgguwut ñi te feeg lépp ngi yomb doo xam kenn dana feeñal tamit li ngeen nëbbu yàlla moomu ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla di dëddaloon nit ñi ñuy weddi yàlla ñi xuuteeg yonantu bi gannaaw bi yoon wi leeree naññ yàlla dana sippi seen jëf ya te ñoo lor yàlla ci dara ndax yàlla leen di jox waaye ñu mënuñoo jox yàlla dara gëm leen yàlla yéen jullit ñi te ngeen topp ko bu ko defee bu leen sippi seen jëf yi ci ngistal bu leen ko sippi ci lépp lu yàq jëf Cheikh na Tidiane li mun ko man ñaar fukki yëf kon nag ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla dëddaloon yàlla wi ñu dee ca ñoom di nekk ay xéeféer yàlla du leen jégal seen i bàkkaar safara lañ jëm yéen jullit ñi lu métti métti bu leen doxati xoote leen rek jëmee ci juboo ak xoote leen ngeen jëmee ci xare yi da ngeen xam ne lu métti métti yéen ay gañe man yàlla yéen la yéen laa ànd ak seen jëf yu baax yi du ma ko wàññi mukk àdduna nag fo rek la ak caaxaan bu ngeen ko toppee mu yàqal leen seen lépp yow yonentu bi bu laaj kenn dara nit kat xalalam dafa sax ci xolam koo yàgga laaj bu yàggee mu noonaal mu noonoo ak yow koo ànd ak yow ci yoonu yàlla nga ne yaay sëriñam muy sa taalibe heure bu ne ngay ñëw ca dëkk ba dama fee jaaroon heure bu ne ngay jaar ci magasin bi dama fa jaaroon mënu ma laa teggi muy làmb di la jox wallahi léeg-léeg dana la séen rek tëj buntam ba te du jeex waaja def na ko sëriñ ñi sonal ko lool ak oto ba rek mu séen oto ba rek foog ne oto sëriñ bi rek daw wax doom ji ne ko nel bu néew ne ko nekkuma fi ndeke kan ñooñu oto ba sofe woon ñu doon wut ndox mu ne ko papa du wut ñoom seen oto bee sofe ñi ndox la ñu ñaan mu door a ñëw xam nga foofa jàmm neexatu fa te loolu ñu ngi koy dund ci ji jamono sonal nit ñi rek ku dara jure ak kaala rek mooy rësu maal ba fu ne nga dem ci magasin nit ñi ci këri nit ñi sonal leen ba bëgg a dee sëriñ ñëpp dama fee ñëwoon wax dëgg yàlla doxut te mi ngi bëgg bëri ci jamono ji yàlla ne yonentu bu laaj kenn dara bàyyi leen lu waa ji yéene mu jox la ko koo laaj laaj nga ko xolam ndax xaalis dafa sax ci xol ku la ko yàgg jox bu yàggee mu noonoo la waaye bu la ko nit ki joxee te fekk laajoo ko ko moo ko natt ba mënal ko boppam lu mu la jox lu mu bëri bëri la koy gën di yéene rek waaye nag boo ko tegee ci pexe mbaa nga bëgg koo teg ci laaj rek su boobaa wax dëgg yàlla bu yàggee ñu jéppi la te doo ca man dara in yasalkumuha fa yuxfikum tabxalu wa yuxrij adxaanakum kon yàlla yàlla musal ñu ci mu mel ni kon saar wi jeex na tombeeg waxtu wi jeex euh, xam naa suba la ñuy mottali tafsir bi ni ngi ñëw ci suratul yi kon yàlla def na ci miracle bu mag ndax comme sëñ bi dafa ñëw hubbiloon muy fathu euh, ñu war a ñun tamit war a jeexalee ci ci fathu moom mu war a ñëw nag alxames ji war koo tëj loolu tafaul la gàn goo xam ne gu rafet rafet la yàlla na yàlla dëgg ci loolu tamit xett la nga ñun ñëpp xett la ñi fu ñu mën a nekk suñ mbokk yi ci kaso yi yàlla na yàlla génne leen fa suñ mbokk yi ci prison yàlla na yàlla génnee leen fa saanam ñu ngi ànd ak ñun jamono bi ñu ngi tafsir bi yàlla na leen teggi seen jafe-jafe yëpp ñu ci lali hôpitaux yi wala ñu nekk ci kër di sooxaale jàngoro yàlla yàlla saafara leen saafara goo xam ne ànd naag dund ñu nekk ci yoonu tukki ci frontières yeeg fu ñu mën a ne yàlla na yàlla xettali leen ñu nekk ci examen yi tamit yàlla na yàlla may leen ñi at mi ñoom ñëpp ci barkeb Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def